ñu ngi sant di gërëm euh, di remercier le président Draman Coulibaly bi nga xamante ni moo jiite suñu kuréel bi ŋànk loterie yi nekk biir Afrique yëpp tey Sénégal moo am mbégte ak contentement di recevoir euh, directeur généraux yu bokk ci kuréel bi pour ñu organiser benn comité exécutif ci biir Sénégal loolu nag day faral di wone ni Euh, Lonase mu ngi nekk fi mu nekkoon bu ko yokkul te loolu dañ ci sant yàlla di ci sant ñi ciy liggéey sant aussi euh, kilifa yi fi nekk parce que ñoom ñoo ñu autorisé pour ñu mën a def lii ñu def mën a accueillir yeneen euh, suñuy naataango ñu ñëw ba Sénégal di waxtaanee liggéey bi fi am waaye tamit di jël exemple liggéey bi ñu nekk di def ci kaw Lonase donte dégg ngeen ko sànq ci discours am. ñëw na ba félicité ñu ci liggéey bi ñu nekk di def bokk na ci partage d'expérience bi ñu fi nar a def waaye it di sant ñëpp ñi nga xamante ni liggéey nañu ak ñun pour accueillir leen ci anam yu gën a rafete Sénat Sénégal pays de la teraanga la fii ku fi ñëw gis na ni ñu ubbeekoo ak nu ñu mën a teralee gan loolu nag ma ciy sant équipe yëpp di ci sant ñëpp ñi nga xamante ni liggéey nañ ci waaye nag di jiital cant bi ci président de la république euh, monsieur le président euh, Bassirou Diomaye Diakhar fay ak gouvernement am lépp parce que yónnee nañu délégation euh, ministère des de l'intégration africaine et des affaires étrangères def na wareefam jàppale ñu ci organisation bi di ci sant di gërëm aussi le ministre Cheikh Diba ministre des finances et du budget mi nga xamante ni moom moo nekk suñu kilifa Euh, ñoom ñëpp jàpp nañ ci daal ci organisation bi waaw lu ñu fiy waxtaanee bëri na euh, ni ma ko waxee rek partage d'expérience am na ci waaye li jëm ci euh, statut yi dinañ ci waxtaan maanaam charte yi nga xamante ni moo ŋànk association bi waaye tamit doxalin bi ñu nekk di am ak nan lañ ko gën a mën a rafetale fexe ba ñëpp mën cee bokk gis ci seen bopp parce que ci association bi lañu ñu mën a waxtaan ak yeneen dëkk yi nga xamante ni am nañ ak ñoom ay convention wala ay partenariat pour ñu xoolaat lépp waaye ñun it ci suñu biir nu ñu mën a organiser wu ba mën a jàppante jàppalante ba jëmale kanam organisation yi nga xamante ni moom la ñu jiite ñun ñëpp mooy euh, loterie yi donc loolu daal moo waral euh, toogaay bi am na yeneen euh, poñ ci ordre du jour bi waaye ci biir comité bi lañ koy waxtaanee. merci